a ah, baatu wet gore wetali ko gore bu nekkee am na si alxuraan Ama Baldé moo tax ñu bind ko baatu wet gore wetali ko gore billaay wallaay talaay Ama Baldé moo jënd a gore sulu yàlla sax moom kenn mënu kaa jënd mais borom biir yu yi ñu jàpp démb pale dugal leen biir pale jënd leen yéen ñëpp yéen dara ay gor nekkul ci yéen yéen xanaa yéen yéen xanaa yéen nekkul yéen jeunesse yéen ñoo leen supporté xanaa nekkul yéen jeunesse bi yéen ñooy dem esat na yow suuf yéen a ngeen suuf dem foofu noonu man nekk foofu di fecc di man di seen biir Ama Baldé yaa gore Ama Baldé kenn du yëpp tamit ngeen toog Ama Baldé Amadou Sall ñun jeunesse bi moo ñu ñor quoi mais boo gisee maanaam Ama li mu def dafa rafet ngeen ah. rafet lu quoi noonu demee nag loolu la demee geste la ndax de maanaam Ama yaa gore la kenn mun laa jënd ñun jeunesse bi moo ñu ñor ay ngaax la ay Macky Sall du Sonko ñun jeunesse bi rek moo ñu ñor kase ñun topp ñu Macky Sall topp ñu Sonko topp ñu Macky Sall ah, topp ñu Demba tegoo ko si yenn yi. noonu la demee nag wala gëj a bëre ba léegi waaw ñor quoi jàmbaar na yow. billahi jeunesse bi rek moo ñu ñor. doo ko gore billahi wala talaay. ndax Ama dafa def lu rafet ak lu rafet la defal. billahi Serigne Touba Mbacké. Ayo Taala da moo loolu. waaw.